koo xam ne jàpp nañu impliqué nga ci. Mhm. nañ la teg sa place parce que réew mi dama ne acteurs politiques yi moomuñu ko. Mhm, absolument que ce soit l'opposition que ce soit la mouvance présidentielle moomuñu réew mi. Mhm. réew mi président Macky Sall dafa ñëw fekk ko fi. l'opposition actuelle la dina ñëw fekk réew mi. kon su fekkente ni tey réew mi dem na ba tollu fii dama la kenn ku ci nekk nañu ànd ak dal te lu ci nekk bu fekkee ni ci république lañ nekk nag. république. nañu xam ne ci république lañ nekk. ok su fekkente ne nag kenn ku ci nekk da nga ni man maay defaral sama bopp maay fajal sama bopp allah ku nekk na assumé. merci jërëjëf sëñ Babacar mu ñëw ci euh, sañ sëñ Mor euh, euh, léegi dañu gis ñu ngi. parce que temps bi li ñu dese bëriwul. ci ci ci beneen dossier bi ñuy bi mën bi Sénégalais yi aussi am inquiétude mooy ñu ngi jëm ci procès Ousmane Sonko Adji Sarr ah ñëpp jàpp ne ñenn ñi jàpp ne dossier bi rax na politique ñenn jàpp ne diggante ñaari citoyen la est-ce que tey ji aussi jotu kilifa di àddu ci ak naka nga gisee dossier boobu. waaw kay xam naa bala maa tontu ci loolu euh, sëñ Baba euh, sëñ Massamba damay coof tuuti rek ci fi imaam daaneele woon. Mhm. ci kilifa diine yi waruñoo teel a wax. Mhm. ah kay seen kàddu lu cher la. Mhm. nangul nañ leen ko bu baax a baax <clears throat> waaye xam nga man li ma euh, li ma gisul mooy kilifa diine ci biirum réew nga ilif. ay millions. Mm-hmm. ci ay citoyens kilifteef goo xam ne président de la république bi nga xam ne moo jiite réew mi yëpp amul kilifteef gu toll ne ci ñoom. Mm-hmm. kooku dama jàpp ne ay information waruñ di toog ba réew ma tàng jër jër ñuy door a ñëw di leen informer naan leen fii la réew mi toll fii la réew mi toll ñuy door a wax. Mm-hmm. man li ma jàpp mooy ñoom. ni président Macky Sall di amee ay information bu xëyee bu ñu xëyee suba ba ngoon li xew lépp ñu indil ko ko tegal ko ko mm-hmm. ci taabal lu mu ci war a liir mu liir ko lu mu ci war a diglu ay nit mu diglu leen di am ay renseignement yu doy sëkk mm-hmm. di xam fi muy teg tànkam même chose la kilifa diine yi war a am mm-hmm. absolument di am ay renseignement yu wóor gis nga Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiallahu anhu bi mu fi nekk dafa jël ay boromi xam-xam ko seen xam-xam mate maandu kenn ku ci nekk mu am lu mu la sédde ci yoon wi mhm. gis nga ni président Abdou Diouf bi mu fi nekkaloon doon amee information Cheikh Abdoul Ahad noona la doon amee information mhm. nettali naa ko fii ay jeune murid génn ne dañ may traqué mhm. xamuñ li xew gis nga yoonu murid du caagee ne da naan lu ma fekkul ci mbind du ma ko gëm gis nga xisas yi ñuy nettali nii parce que damaa nettali ñetti xisa ñetti xisa yi ñoo bokk genn kilifa ki ma ko nettali surtout Cheikhul Khadim la mhm. moom moom boo ko boole nettali ñetti xisa yi te man ni may gisee ni conférencier la imam laa damay xutba mhm. mais nag euh, xissa duma ko jële ci n'importe qui mhm. dafa am yu may natt ci yow nga door maa wax ma jël loola jàpp ne liikat lu ma mën référé woon waaye du ku ma wax ma jël léegi nag kilifa googu dafa maa nettali ñetti xissa ma nettali ko ci benn émission émission bi yaakaar naa ne euh, digluñ ko ko am ci ñoo xam ne dañoo jël benn bi weddi ko ne loolu jógewul ci sax Abdul Ahad ah bon julli géej gi ñun ñëpp d'accord nañ ne d'accord nañ ne Seexul mhm. Xadim julli na ci géej waaye fi ne amul kenn ku ma mën a indi mbindum Seexul Xadim fu mu bindee ne julli naa ci géej gi waxtu sàngam laa fa julli léegi lee tax ma julli fa mhm. am na nag ay mag yoo xam ne bind nañ ko gis naa seen i mbind yoo xam ne yaxal nañ ne sëriñ bee leen ko nettali ci ci làmmiñu boppam ñuy mag ñu doy sëkk mhm. waaye sëñ bi ku jàpp loola buñ ne laa Cheikh Abdoul ak àggoon na ci soxlay information ci li xew ci dëkk bi mhm. am aw nit woo xam ne dañ koy informer li xew pale de la république absolument dañu jël ci beneen question parce que ma maa ngi ciy ñëw Abdou Diouf day nas bu nasee ba noppi mhm. Cheikh Abdoul Ahad woo ko ne ko lii kay bu ko defee nii defe ko nii wala lii bu ko def bàyyi ko mhm. mais loolu la soxla foofu la réew mi toll waaye toog ba réew mi di toll ci tàkk ñu naan la kilifa kilifa man jàpp naa ne mbir mi wërta defe wërta demee noonu mhm. léegi nag euh, dossier bi ndax dossier politique la wala du politique xam nga nag euh, euh, ñun ñëpp wax nañ ko ba tey ci république lañ nekk ci mhm. république lañ nekk waaye nag bu fekkee ne ñun dañuy toog ba gëm ne mhm. toujours nii lañ war di doxe parce que ci république lañu nekk sëñ Babacar wax na ko léegi ñu toog fi junni at di wax li ñuy wax te dara du saafaraw mhm. gis nga nit dafay jomblu mhm. président Abdou Diouf lu mu noon ci Abdoulaye Wade def na ko mhm. ngir écrasé ko président Abdou Diouf yàlla indi ab dogalam fal Abdoulaye Wade waaye moom bu sañoon Abdoulaye du ko wut ci bopp réew mi absolument dañu wax ju baax loola seeni doxiin la ñoom sa adversaire politique li nga xam ci moom mooy écrasé absolument politique Sénégal fii noonu loo dexe wala boog Afrique. sa adversaire politique écrasel léegi nag président Abdoulaye wadd bi mu bi mu teqali ko président Macky sàll bii. est-ce que ubbi ko woon dossier. ubbi woon nañ ko ubbi loon nañ ko dossier luñ ko jiiñ blanchiment d'argent ko jiiñ loola ci ay nettali dégg ngeen ay nit di wax ne am na ay ay ay kilifa diina yoo xam ne ñaan nañ ay intervention taxaw ci mhm. pour dossier bi ñu bañ ñu bañ cee progresser ngir indi stabilité ci réew mi absolument kon tey jii kenn mënul wax ne dossier bi dox diggante euh, soxna si Sarr ak euh, Ousmane Sonko mhm. politique làquwu ci mhm. léegi nag li man sama gis-gis la mooy li ñu soxla lépp ci ay témoins waaw ndax bu fekkoon ne am nañ dossier médical bu ko réglé ndax li ñu soxla li ñu soxla woon lépp ci ay témoins doon nañu ko soxla. doy na waar. parce que boobu ba léegi. doyen de justice comme jàpp ne xam nga ci dara woo na la déglu la déglu la. très personne la ñuy wax ne. Euh, tudd nañ leen ci déglu leen mais ñi ëpp ci ñi ci tudd. déglu nañ la ngir. jàpp ngir dossier bu lëndëm dossier bi dafa lëndëm. ñun ñëpp kenn natt bi lu ne <laughs> dafa lëndëm dafa lëndëm dossier bu lëndëm la. non bu xam nga bu leeroon. bu leeroon kon tey jii fekk na wax dëgg dëgg dëgg Ousmane mi ma ma nga prison mhm. waaye nag ñàkk leer moo tax léegi nag loola état nañ wax nte dëgg rek mhm. mënta am occasion bu toll nii ci adversaire politique am c'est-à-dire principal adversaire sax mhm. mu am ci dossier bi mel nii te mënu ci te du ci langaamitu kooku mënul nekk absolument il faut mu langaamitu ci léegi nag li ci des mooy la dossier bi war a jur ëllëg ci réew mi lañu war a xool ba xam ndax jar na ko wala jaru ko gis nga boo gisee may wax ne kilifa diine yi dañoo war a impliqué wu ci doxinu réew mi bu baax bu ñu xëyee suba ba ngoon ñuy xam li xew. Mhm. gis nga lii man dama jàpp ne dafa laajoon kilifa yi bu fekkoon am nañ ay suffisamment euh, d'information mhm. ñu dajale ñiñ ci war a waxal. nga mhm. xam ne ay l'intéressé lañ. muy président Macky Sall muy président Ousmane Sonko muy ñoom ñëpp. waxtaan ak ñoom seet nan la ñuy def ba indi stabilité ci réew mi gis nga nag. Mm-hmm. nañu bàyyi yii ñuy wax bu ñu waxee ñu naan ñaari citoyen la ñaari citoyen mbir mi dootul dootul mm-hmm. mbiru ñaari ah citoyen tax la def. <laughs> déet waaye mbiru. non nañu nañu mbir mi nekkatul mbirum ñaari citoyen mbirum ñaari citoyen mm-hmm. parce que ñi ci dugg ñëpp dootul mbiru ñaari citoyen léegi. jigéen ji nga xam ne moom moo yëkkati tuuma. teg ko ci kaw nit ne daf maa tuumaal. waaye jigéen jooju toogaat na. tudd ay kilifa kilifa fii ci réew mi ah, wax dëgg yàlla am ci lum leen tudd mhm. ñooña bu fekkoon ne dañoo raxasu ci dossier bi ba set ci wecc seen yoon nekku ci mhm. est-ce que seen seen seen tur dana génn ci làmmiñ soxna si na waar kon kenn mënut wax ne du dossier politique mhm. léegi nag bu fekkee ne dossier dossier nar naa jur aw nit di faatu wax dëgg yàlla jëru ko léegi nag dañuy bàyyi xel ne fukki nit ak ñeent ñoo faatu ci mois de mars bi fukki nit ak benn faatu en 2011 avant Macky Sall di falu mhm. te yooyu yëpp nag ay ay ay ay ay ay événement politique rek la mhm. léegi nag ñiy faatu ci biir dañu xam ne njabootu kilifa diine yi lañ gis nga événement yi di am nii politiciens yi ngay gis seeni doom duñ ci faatu mhm. dañu waxante dëgg may ma rek ma daaneel may ma dëgg rek ma daaneel seeni seeni doom duñ ci faatu politiciens yi muy ñu féete ci pouvoir bi ñi muy ñu féete ci opposition bi